हाँ जो हो waaw man bis ba doo def dara. mag nga lépp loo xam ne bis ba appliqué incha doo doo doo def dara man nga maa mun maa bu doole maa gën a féete xale. leen tam maa la koy xamal. woy ba maa tax ñu koy woy. leen tam maa la koy xamal. loo def si làmb. lu bëy lekk ba cib cib nag lekk na. waaw dafa lii doo dara mag nga munoo am doole. sa forme bi li forme la dama liggéey waat man xale bu ndaw laa damay liggéey dama am doole ba bi sifflé foo fekk foo taxaw ma fekk la fa. Ah, dama lay ramasser loolu laa bëgg. dugal fii nga ay fii ma samba ma démb doo dërëm mag yaa mag sama mag papa ma la jàppee dama lay duma dama lay daan maa mun maa bëgg doole maa gën a féete xale lépp loo wax rek ma fii la dama mos a bëre du ma yow yaa dul appliqué doo def dara fay ñu la pour ngay ngay ne fii mel ni ibaadu la fay pour nga ñëw signature doo produit bu jar kenn xamul la man maa tax ñu tëgg la a ne fii dag may toojal incha def si làmb ma lay toojal doo dara munoo da ngay a da nekk si làmb defoo benn preuve ma ñëw fekk la si yoon bi puus ma jàll force mu lay neex da ngay puus mu lay naxee da ngay puus dafa teel liy wax yomb naa ndaanaan nga samp yoon mais ki la daan war na la daan da nga koy dégg mu lay neex mu lay naxar yi sa kanamu tapet bii nga yor. kon xam nga ni champion la. kon dama champion doo dërëm doo dara man maa lay dimbali dina sagal sa naa la champion doo dara defoo si làmb dara ay mag ngay daan xale bu ndaw ngay bëreel maa mën maa bu doole maa dàq bëri maa ngi leen féete xale. yamal sa yaram sa biir bu rëy bii ma liggéey waat sëñ bi doo dara. su ma jàppee mu jeex fu ma jàpp mu jeex. lépp ma jàpp ma jàpp incha allah. la neex nga ñëw ñu wàcc suuf ñu commencé làmb ji. seexuma yow loolu. ma daan la. arène nationale la seex ak yow. boo bëggee ñu commencé si suuf 100000 100000. ma daan la seexuma yow loolu. ma daan la 10 combats ma daan la maa la mën maa la bu doole dama continuer sa cek cek bi nga doon def. làmb ji amoo si place mag nga maanaam ay fii di expliqué billaay moo la jàppee daan la maa la mën fuuf maa la bu doole fu ma la jàpp sa yaram daan la maanaam yàlla suturaal même ndax. waaw fii ñëpp la yàlla di suturaal. Ah, signature lañ nekk da ngaa waat ne billaay signature lañ nekk sëñ bi. da ngaa waat ne billaay moom dama jaxasee ak yàlla de dama lay daal force bu soobee yàlla. yàlla nga seex man waaw bisu laa ma jot da nga xam lépp dëgg la ki dafa ruus a signature man chaque jour moo ko ko danaan benn boy laay bëreel quoi instant daa ruus sax publicité combat bi mais Ibou fay ñu pour ñu ne ni Ibou Laye dañoo fay pour ñu bis bi ñoo dina noppi fopp mais bisu làmb ja kon looy jëlee sama avance looy jëlee sama avance doo produit bu jot promoteur sawuñ si yow man maa tax ñu tëgg la bisu làmb ja noo def daanu boo xeexee daanu boo bëree daanu noo def daanu arbitre siffle la seex ak moom kon lay jëlee sama avance arbitre siffle la seex lay jëlee sama avance moom wax lay jëlee sama avance bëri laa seex ak moom lay jëlee sama avance kon sama moon wax di jël sama avance baa lee seeko moon wax waroo woon jël sama avance munoo dara munoo doo puus doo paas. billaay maa xam maa ëpp doole. maa laax bëre billaay wallaay maa ëpp doole bu fekkee bu ma ko doole yàlla bu ma ko daan ku dàq bëre ku gën a daj coono si làmb ku gën a bëgg làmb ku gën a tarbi làmb yàlla yàlla am ndam. am ndam naa la ku gën a tarbi làmb ku gën gëm làmb ku gën a fonk lamb yàlla yàlla yàlla ko yàlla may ndam. ki kii maga moo ko dugal si làmb kii du mbër kii màgg bëre la ki xamul sax ni ñuy bëre. daan rek. bilaahi. kii du pousse du passe. du nga may dara. doo pousse doo passe. dama lay dara fépp a tàng. fépp a tàng bilaahi. ma ne la sa ñemax ñemax na nga ko def. boo ko defee ma arrêté la fépp a tàng fépp. ma seq la sànni la valise. fu ko jógee di nga fa dellu incha allah rabbi. da ngay ko jógee di fa dellu yaa ma fay delloo. maa la ko wax rek di nga fa dellu de. si kàttan yàlla a pare. yàlla yàlla mooy traité fekk ba. ngaa ñëw na ba pare ñëw na ba pare. bàyyi ngaa ji xam nga Sivaay waaw loolu loolu. loolu maa ngi lay kii bàyyi naa sifaay soog la daan li des ci sa àdduna dootoo sifaay te yàlla may talak rek amin amin ba suur bañ a manqué yàlla yàlla may wér amin may la ko yow itam may borom sekoto yi maa laa lay duma daan laa <laughs> <laughs> lay seq maay laa lay seq seq laa lay seq maay borom arène nationale maay borom seconde yi. demi seq laa lay seq. su ma ko jàppee rek du yomb. demi seq laa lay seq du ma la seq añcee bu ma la seqee añcee day ëpp. yàlla yàlla may teel ak fekkee. yaay borom arène nationale jour boobu dama lay génne arène arène nationale. yàlla yàlla may teel ak fekkee te demi laa lay seq. yàlla yàlla may teel ak fekkee ñemax ñemaxil ñëw rek. amul benn problème. di mel ay melentaan laa ngeen ko ay melentaan laa ngeen ko waaw yooyu noonu na nga ko def nga ñëw ko moom laa ngeen ko ay melentaan wala basarate ji su ma la jàppee rek du yomb waaw baax na maa ngi lay jàpp nga xam ne maa la ko ëppale tapet nga amoo doole non man ku ma xam xam ne man ku ma xam xam ne man xale laa xale bu ndaw laa ku ma wax ne man xale laa waaw bu baax sax yow liis dalaa jëkk a jëm boppam moo tax muy bëre mais yaa koy mën a jur nee nga garaam nga liis bëre na quatre combat non da nga ne da nga ne bi liis njaago di bëre ak man yaa ngi na ko la bëreegum waaw léegi ma ne la la liis dalaa jëkk a boppam te nga mag ko dalaa jëkk a ah, boppam a jëm boppam ni ma ko daane woon ni laa lay daane ni ma ko daane ni laa lay daane barke borom Touba ma daane Liss Ndiago loolu laa du ma andi jaag de mètre percal corbiya bi laay andi soo ma ba laxas ma jaag day des kër nga corbiya bi laay andi xam nga rek yoof nga jël soo ba laxas ma yow ma tuwaawal yow ma tuwaawal soo ma rayee ba laxas ma rek yow ma tuwaawal ci xoto bu mag. dinaa la woon nag di nga jéem doon góor. talak seeg rek waaw man du ma góor talak seeg rek voilà noonu la demee nag. talak seeg rek jàppee nga xam ne lépp dëgg doo pousse doo passe. yàlla yàlla may talak seeg yaa mën yaa yaa lépp yaa ëppale lépp yaa ko lépp lii rek nga mën wax wax rek nga mën man si yow laa ko jànge wax ju bëri rek xam lii waxoon nañu ko da dugg si benn affaire ñu fekk si nga tëj sa gémmiñ dafa ŋaamu wax bu ñu koy wax jama gën la teg arène nationale li ñu daw arène nationale wax jama gën la teg wax ju bëri wax ju bëri waxal wax ju bëri wax ju bëri rek man wax ju rek kaw nga man mooy daw fii xam nga da di jiitu si affaire bu leen fekkee ngeen jël dañoo jën glace déggoo ma wax si ñoom lañ ko dippee mais ma la ci fixé da dama seetaan benn interview dama interview mu naan damaa daw man nga tapet nga yàlla dogal damay ñëw signature da koy ko yàlla bu baax yàlla sant yàlla ak lépp ñoo la daxa sant ji bis ba eh, la daxa sant yàlla ji doo pousse ko waa dugg suuf laa ma duma la daan la maa la mën maa la doole yaa la demee nag yaa ëpp lépp wax desatu fi fi mu rek ñu gis ak waaw moo tax war a baasi wax ji man yow mi yaa ko war a bàyyi yaa ko njëkkee ñu fekk si la ci nga jën glace. wax jëf comme que da nga ne ji ci yow la. jama gën wax ji si yéen la. bis ba rek man du ma wax yow kese. la waaw yàlla baax fii da ngay jën da ngay jën sa baaru glace teg. annuwaat baar amul benn problème. da nga na continuer camion bi sa problème la mais waroon a jënd ba bis ba billaa walaay bu ma la nga xam ne lépp dëgg la maa la gën a doon xale ëpp la doole daq laa béré ëpp la fit gën laa gën laa capable li ma capable capabuloo ko maa ngi ñaan yàlla may lépp looy wut si lam maa la ko ëppale foo yaakaar fi ma yaakaar gan mbax ban mbax la mbax yi gan mbax la é ban eh, mbax la man naxa naxa laa man duma ngaaga ne naxa naxa ban mbax ban mbax yow mu da ngaa ndaw si dugal laa dama ngaaga de dama rom ngaaga laa xamal bu baax tapet nga affaire tapet rek ngay wax wax tapet nga dama lay xamal bu baax nga xam ne loolu deuxième la amul problème nga naa ay mbax ak ay maa la ëppale ba rek barke borom suñu yaa mu lépp yaa mu doole barke sëriñ bu sewee kàttan yàlla maa lay daan rabbi kàttanu yàlla maa lay daan yàlla bu yàlla yàlla yàlla may tarak fekke rek ñamax rek ñëw amul problème amul problème amul problème arrêté ko su la rey ma yow pousse doo paas amul problème bi man la